deh. Baik. ñu jotali leen digalul sëriñ bi sëriñ kan, bi dafa wax ne ñi yëngu ci dëkk bi nañu dellu ci kër yi warmaale ko sëriñ bi sëriñ bi dafa wax ne ñi yëngu ci dëkk bi ñi yëngu ci dëkk bi di Touba nañu dellu ci kër ya warmaale ko sëriñ bi sëriñ bi dafa wax ne jox na ndigal bépp taalibe bu yaakaar sëriñ Touba képp kuy yëngu ci dëkk bi nu dellu ci kër yi ngir wormaale ko sëriñ bi ndigal laa ngoog